asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir nga xam ne nii moo fi toog jataayu Cheikh Mountakha Serigne Touba Serigne Mountakha di nuyu mbokk yi fi teew yépp daanaka sax xëy na ñi njëkk wax li ñu wax moom xawoon naa doy bay déglu li ñu sëriñ wax kon xëy na bu joxee kàddu lu gën a taaral jataay bi gën a taaral liggéey bi rek lañ ci jublu kon nag ñu ngi sant mbokk yëpp ci wuy ji gi nga xam wuy gi nga xam ne wuy si nañ ko sëriñ bi xëy na nag lenn rek xamaguma nag lu sëriñ bi digle ca lu mu digle loolu ca lañ fas yéenee taxaw suñ kemt lay kàttan ba loola am waaye nag dafa am loo xam ne nii gannaaw ba ñu nuyoo bi nga xam ne moo fi teewal administration bi di nuyu monsieur le nga xam ne nii moo yor di saytu dëkk bi ànd ko chef de am rek loo xam ne monsieur da ko souligner mu tutaale ko ci biir muy ci suuf si lool nag xëy na dañ ci wax rek li nga xam ne jàpp nañ ne xëy na buñ ko boolee ci liggéey bi ak bu sëriñ bi joxee ndigal ba noppi nu ñuy def ba saytu ko ndax nañ ko def bu ci nekk nañ ko waxtaanee da koy jiitu kon nag loolu moom li ci am rek mooy dëkki moom ñaari cër la yoo xam ne nii buñ ko boolee day daal di doonaat benn ci sëriñ bi wante ci wàllu administration ñaari mbir la muy li nga xam ne moo ci aju ci titre foncier bi ak li nga xam ne nii moo ci aju ci génn titre foncier bi wante lool it lu ci nit yilif lu ci nekk sëriñ bee yilif ko ko yilif te sëriñ bi la ciy dëggu kon nañ seet loola gannaaw buñ xamee jublu sëriñ bi loolu lépp nuñ koy nosee ndax alhamdulilah am na ci loo xam ne nii ca gannaaw mel na ni Cheikh Bassirou ànd na ko njaboot yépp bañ def ko ca lu am solo la ca lu ko mate woon la mooy liñ dé li nga xam ne nii jëlaat nañ délimitation bi nga xam ne moo ëmb titre foncier bi ba ràññeel la ko ba jaawale mënatu cee am nga xam ne fu nit tool dana ko xam kon loolu xam nañ ko loolu kon moom li ñuy ñaan mbokk nañ ko bàyyee sëriñ bi di ko ci déglu ca bañ ko cee jiitu ca it fépp foo xam ne nii dangaa jàpp ne sa yëfa yi ndax ñaar rek a ci am nit ñi dañoo jox seen bopp sëriñ bi ne ko yaa ñu yilif àddina ak àllaxira soxla wuñ suñ bopp dara kon dañuy ñaan mbokk taalibe yooyu ñu bañ a xëccoog sëriñ bi dara ca lañ am rawatin nag la nga xam ne état da koo jox mu koy saytu kon loolu yaakaar naa buñ ko defee dana am solo ñu xalaat ne it bu jataay yooyu amee ñu toog waxtaan ko maire superviser ko sous-préfet ànd ci ci kaw li sëriñ bi bëgg ci ñun dana ko mën a am muy morcellement yi nga xam ne mooy am ci li génn titre foncier bi ndax li nekk ci titre foncier moom sëriñ bi moo ci am kàddu luñ ci war a morcel yëpp bu nekkee ci toolu jàmm na ko bàyyi sëriñ bi mu natt ko ba noppi bu ko joxee lépp mu xam nu mu ca dogalee mu xam ne noon la ca dogalee loolu moom loolu moom moo ci doon sama wax li nga xam moo génn titre foncier bi ja nga xam ne maire am na ci sañu addu luñ ci war a morcelé lu ci nekk sëriñ bi dañuy ñaan ña ko doon morcelé nañ jaar ci yoon wa ñuy morcelé ay parcelles ak ci tool def délibération ba mu wóor ne am na ñu xam loola maire yor plan bi ci biir commune bi loola buñ ko doxalee dana am lu ñuy dimbali ci wàññi coow yu ci bare bare ndax morcellement moom plan buñ ko defaree ba noppi ab réserve dong ba lañ koo dindi war na jaaraat procédure morcellement bu njëkk ba ndax loolu it mën naa indi lëj goo xam ne ëllëg ka koy lijjanti da koy sono rek ndax lu ñu morcelé ba mu nekk ci plan nga xam ne tey boo ko yóbboon kadas wala foo ko mënti yóbbu la nga ca dagaat buñ ko yëgul ka ñëw bu gisee cosaan la cosaan la rek lay daal di jàpp kon loolu it day bokk ci organisation yi kon meer daal gannaaw bu sëriñ bi diglee li muy digle ba noppi nañu dajewaat ci suñ ñu toog waxtaan lu ñu ci xalaat luñ bëgg ci ñun lu ci nekk ñu xalaat ko ndax lu ci nekk am na yoon kenn ku nekk am na fu liggéeyam tàmbalee am na fu mu yem la muy am na lum cay sañ am na lum ca dul sañ loolu nag buñ ko xamee gannaaw bañ xamee bëggu sëriñ bi danañ xam nuñ koy boolee doxee xëy na beneen bi nga xam ne danaa ko ñaan bi di ko ca tàmbali woon nañ ko waaye nag dafa am diggante bu mu dogoon te boobu ba léeg nit ñi danañ ma ci wax chef village danañ ma wax bëgg caa jóg jëm wante am lu ma xalaat ndax léeg-léeg nga jóg bëgg a defar loo xam ne danga koy defar ca la muy jur ci yàq ca ñoo xam ne yàq dong leen tax a jóg loolu da ciy daal mën a poto ca lépp nag loo xam ne mooy fas yéene yàq liggéeyu Serigne Touba man Moustapha bokkuma ci kon loolu mooy lan mooy fii dafa amoon benn association boo xam ne dafay amoon loolu nag lañ ko jublu woon mooy mànkale bëgg-bëgg yi ba ni sëriñ bi bëgg ñu def ci dafa mel ne ci loolu la ñuy doxee waan dafa am fu mu fu mu taje ca la koy tàggante mooy ñun ñëpp ñu dajalewaat waxtaan ci biir ah la ngeen cay joxeñ ñu bàyyiwaale ko xel la ngeen ca joxeñu nag cam doon suñu yittey bopp ñu koy manqué ba mu doon benn ndax damay ragal ne mbooloo buñ toogee kee wax jëme fee kee jëme fi wax gan nga ñëw day jàpp ne jubóowuñ seen biir ci xam nañ ne sëñ bi rek mooy suñu bëgg sëñ bi moo war a doon suñu jublu luy defaral sëñ bi rek moo war a doon suñu jublu kon loolu moo koy waral kon nag association boobu buñ ci amee ndigal mën a toog daje ndax dama dul bëgg benn yoon ñu ne nañ ko daje ñu daje ko ñu ne dafa am leneen lu ñuy fexe lu bokkut ak la fi nekkoon kon loolu amul xam nañ ni ñi ci nekk yépp ndax am na audience boo xam ne kat bañ ca toogee muy kilifa gi mi dañ koo xamaloon ne ko Touba la nekk yépp genn kàddu la muy sëriñ bi ca loolu it loolu lañ gëm kon nag fii buñ ko fi yaakaar na fi lay gën a ñoree foofa kon loola ñi ngi ci ñaan nag buñ ci amee ndigal ñu jógaat ca dajalewaat waxtaan boole kook seen joxoñ ya ngeen joxoñ ndax dafa mel ne ba fi sëriñ moom lu jógee yàlla na ko suñu borom dolli leer ca dolli yërmande ca kawam te am na nu mu nosoo woon noo xam ne doon nañ ca doxee noo xam ne am na fu ñu doon jëme kon nag loolu yaakaar naa bu ñu ko defaat danañu amal njëriñ ca loolu nag la tax ma koy sàkku mooy jamono yi ci gannaaw xam naa dañ koo xamul ndax mbir boo ko jëlee ba mu am solo am fu mën a àggale cay njëriñ ci réew mi yépp boo ko jëriñoowul ab diir nit dana ko këf di dem ak moom nga naan lam këf maa ko moom ca yow yaa yor dara bañ xam ko ràññee ko xam la mën a jur ak la mën a jëriñ ñu sàgg ne ko muy dana am machine boo xam ne dañ ko xalaatoon ci village yi waxoon ko ba ca hiérarchie ba ca kaw ñoom ñu nangu woon ko man sax bindoo daal naa ci benn mémorandum boo yónnee ko ministre de xam naa waxul ci dara waaye nag dafa am loo xam ne nii ah buñ ko nangoo buñ na ko yaakaar naa boo ci jëlee ku mel ne sëñ Youssou moom bu ci waxee yoon dama la am lu mu la ci mën a leeral waa dafa loolu loola mooy lan dañoo daje dajewoon ñu waxoon président am luñ doon daw ci ñu gis loola ndax bañ dajalee ba def collectifu chef de village Touba Mosquée ci njiital Serigne Mewnu ci ak nosu ca Serigne Mewnu mas ta def dara ci diisuwu ko nit ñi bañ ànd koo moom mu doog ko yëkkati ca kaw kenn ku ci nekk mu xam ci gëddaam jox ko ko xel xenn ku nekk mu xam ci àqam lu yitte tuuti tuuti dana ko seddoon nit ñi ca noonu lañ doon doxee doxin woowu ñu doon seq nag président ba fi njëkkoon nekk di maître Abdoulaye Wade moom lañ demoon ba àggoon ci dajale ko bañ dem sommet national mooy bañ dajoon ca ñu tëraloon comité collectif chef de village fii ba am récépissé ñaanoon collectif yëpp ñu def ko booba ñun la ca doon suñu xalaat mooy commune bu ci nekk na def ab collectif am ci biir muy ab association boo xam ne mooy lënkale chef de village ci biir commune ba yëpp ñu fa jógee ñu dajale arrondissement bi collectif yi fi nekk yëpp muy commune yëpp ñu dajale seen bureau muy bureau local loolu am na loo xam ne liggéey su préfet ndax damaa ñaanoon président jamono yooyu sax ne ko nañu dimbali jax ay autorité muy sous-préfet ak yooyu comme même les associations à titre privé la waaye na leen jox ko ñu assister ñooñu ndax seen tutelle lañu buñ noppee ci arrondissement booba ñu dajale arrondissement yëpp def ko muy bureau départemental buñ dajee bureau départemental yëpp def ko muy bureau régional bureau régional yëpp dem bureau national kon ña ca kaw danañ xam ne ñi ci suufa leen fi teg danañ leen bàyyi xel ci ànd ba dana rafet ca leneen lu cay bëgg dugg du mën a yàq la fay wante loolu nag damaa dégg ca jamono jee te yaakaar nañu ci bari bàyyiwuñ ci xel mu am ñaaj buñ ñaaj ba ministre de l'intérieur bi fi jógoon xëy na bind accordé benn association boo xam ne da koo def muy ñu tuddee ko association nationale des chefs de village kon loolu nag mënta am ndax association nationale balaa am entité yi ko seq yëpp dañoo war a daje ba def seen assemblée générale ñu xam ne kii lañ jiital wante jekki-jekki rek ca Rufisque ñu daje fa daal leen defal benn association association nationale des chefs de village loolu moom euh, warta mënta nekk ca ñoom bokkuñ sax ca ñuy génne woon levier boobu kon ay pexe ngay tàmbalee juddu di jóge ci kaw di wàcc ñun ca boobaa danañ sëf nit ñi loo xam ne duñ ko mën a àttan kon loolu nag moo tax ma bëggoon di ci ñaan buñ ci amee ñu defaat ko sous préfet dimbali ñu mu tàmbale ci arrondissement ba ñu xam ko wante togg ko moom bu amee ci fii la tàmbalee woon ba la am am loolu bëgg a siif la moo tax ma ma ci ñaan rek mooy nit ki dana yor dara loo xam ne dañ ko am maa ngi jéggul na ci guddal gi wante dafa am loo xam ne ni buñ ko wax suñ kilifa mu teew te waxuñ koon ci biir ñëpp toog danañ xam lenn moo teew ñi ñu doon soññ ci loolu it nañ xam ne lii rek bañ luy yàq wala luy nuru yàq moo tax boobu léegi woote wante ne buñ ci amee ndigal danañ ko defalaat dëppale koog li bi bëgg ba aw yoon ndax ñun ñëpp sëriñ bi rek ñu tax a jóg moom la ñuy déglu tey moom la ñuy déglu ëllëg amuñ beneen soxla bu dul loola kon nañu ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa